tey ci mardi bi Open Presse dama bëgg trois heures ni ñëpp ñu daje fa man quatre heures maa fi kon ñu ñëw ci yar ak ci teggin ak ci respect ak ci fulla ñu gérer seen mbër encadré ko di ay see yëpp nag ay see bu nekk géejuwaay yëpp nag bàyyiwuma kenn mënu leen a jum ñu teel a ñëw ànd ak encadrement bi waa géejuwaay ñëpp dama bëgg ñu génn wane seen bopp xam ne bis bii bis bu ñuy waajal la bis bu ñuy préparer la ñu ñëpp jël seen matuwaay ak ci respect ak ci yar ak ci teggin ñëw ci jàmm dellu ci jàmm non-violence noo xuloo noo xeex man daal xam nga nou, laa na turbine bi neex neex ba mu yëg na mu ngi neex ñu neexal ci suuf incha le premier ñu moo tali duma daan incha allah.